book yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs média benn waxtu jot na ñu ak seen yéen ci xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës benn vidéo benn policier bu ñu filmé ay gone yu jigéen kon di ko ger loolee waxtu yi moom moo lëmbee kon net bi police xam le ni euh, mbir mi du ko bàyyi noonu mu jàll dana ci ubbi ab l'enquête ma ngay wërit euh, xale yi def jëf ju ni mel euh, chauffeur ci àddu ci ñoom gone yooyu la ñu joxoñ baraam xam le ni seen diggante ak policier yi mën nañu ko régler seen bopp coowalof nag demuk Nafi Ngom Keita euh, wax ji ni si xus bu ñenn ñi jàppee ni dañu ko fee jëlee te app bi jotagul am ñu gis ni kon ko demee ni Abdou Mbow jot na ñu mun koo remplacer euh, débat boobee kon nañ ko war a tëj jàll ci leneen dinañu ci waxtaan am nañu ci gan ci biir xibaar yi ma Mamadama Gueye dana ci joxe position moom it avocat la bokk ci euh, plateforme avenir Sénégal gi ñu bëgg maître ñu lay nuyu di la dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi. maa ngi lay di gërëm ci dikkat ci kanam tuuti kon ci biir euh, waxtaan wi euh, danañu leen xamle it takk benn gone gu am BFM fekk am na lu toll ci fukki at ak benn euh, Alfred Amadou Mango lay wuyoo ay waajuram jàngalekat lañu kursisam dem na nit li ko xamante ni moom moo di Cheikh Anta des na ci dikkat wàllu tàggat yaram Casa Sport nu muy waajalee final coupe du Sénégal diggam ak ñaari tali lay doon samedi ji ñuy dëgmal kon lañu ko jàpp seeti nañu muy joueur ci wàllu entraînement waaye it ñii yi. naka lañu ñu taxawee ca boobee bés ponk yaa nga ko listut ñu yaatal ko. dellu rafetlu woon bi ak télévision Futur Média xibaar yi dañu koy tàmbale ak vidéo boo xam ni niñ leen ko waxee ci ndorteelu xibaar yi waxtu wi mi ngi euh, lëmbe net bi vu euh, bari ca ëpp fukki junneeg juróom di dem ci euh, wàll woowu benn policier lañu ci wone ay xale yu jigéen yu mu arrêté woon ci benn oto ngir mu bàyyi leen ñu jàll nañu ko gere mu nangu loolee kon la ñu cay wone gone yu jigéen yooy nag ak policier yi xamante ni ñoom ñoo di kilifay police nee nañ dañu bàyyi mbir mi mu jàll dinañu ci ubbi ab euh, l'enquête xale yu jigéen it waxtu wi euh, ñi ngi leen di euh, wër loolee la ñu xamle chauffeur si ñoom it daal nañu ci yàddu jëmale dinañ dikk ci kanam ci boobe reportage ñu xamle daal ni gone yi li ñu jëf moom la ñu rafetluwul ndax lii mën na leen a yàqal te ñoom seen digg ak policier yi mën nañu ko régler seen bopp dinañu ci ñëw ak reportage Aminata Mbare Saw ci wàllu yoon ba tey jii bu ñu ca desee jàppale na débrayage bi nga xamante ni SYTJUST moom la xëyee ñetti fan fas yéene nañu amal kon ay euh, yëngu yëngal euh, ñoom syndicat boobe ëmb liggéeykat yi yëngu euh, ci wàllu yoon xëyee nañu saxam ndaje ak waaye taskatu xibaar yi dinañu ci dikkit ak Fatima Takk Fatou ne Dem wax ci mandat Nafi Ngom Keita jàpp nañu ni ñoom àgg na ca cëppaa ndaw la ba ñu wax ko mën a wutu ci bopp foofu nag Abdou Mbow bu APR moom moo gisee noonu nee na polémique bi jaru ko ci na bu Ndiaye Diakhaté mi ko wutu am na kon compétence yi nañu ko bàyyi kon mu diriger OFNAC ñu teewlu kàddu yu mu yëkkati ci micro Maymouna Ndiaye caméra Modou Diop. man jàpp naa ne wax joo xam ne la euh, amul njëriñ benn nit laa dégg ci journal tey muy benn professeur droit publique mu ne mandaam jeexul kooku peut-être moom la concerne mais ñun ñi nga xam ne ay député lañ ñoo woote woon texte bi décembre 2012 président de la république ñëpp xam nañ ne le cinq juillet 2013 la nommé madame Nafi Ngom Keïta comme présidente waa nag léegi mille 2013 cinq juillet ba vingt cinq juillet 2016 ay la yowén ñetti at la waa nag léegi loolu nan la ko nit mën a contester donc jàpp naa ne dañuy installer débat boo xam ne amul solo amul sens amul sens c'est pas parce que bul nekk c'est pas parce que juriste rek yow yaa war a nekk di manipuler les concepts naan non entrer en mandat entrer en fonction ak yeneen ak yeneen Abdou Mbow joxe ci noonu position beneen juriste wax ci professeur Jacques la Zunker li mu jàpp moo di ni jotagul woon ñu jëlee ko fi moom Nafi Ngom Keita moom professeur bi xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit administratif la mu jàpp nag moo di mars 2013 la ñu ko fi tegoon kon dañoo waroon a mën a wéyal ak toogaayam ba ca kanam moo doonoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci fi mu ko teg ba jàpp ni jotagul ñu jëlee ko fi professeur bi dénk na ko ko. su ma ñëwee ci date yi rek pour mu gën a gaaw ci ni damay fàttali ci atum 2012 OFNAC ñi ngi ko créé ci bu bi 25 juillet ci lañ daal di nommé kii di madame Nafi Ngom euh, moom mi nga xamante ne daal di koy nome fële ci euh, bopp OFNAC at euh, ci weerum octobre 2013 kii di vice président yi ci lañ leen daal di fal 31 décembre 2013 lii nga xamante mooy membre yi ci lañ leen daal di nommé ñoom tamit 25 mars 2014. ñi nga xamante ni ñooy membre yi ñoom ci lañu daal di porter serment devant euh, ñi nga xamante ni mooy cour d'appel waaye léegi lan la texte yi wax bu ñu mënee jàpp ci lu gaaw texte yi ñu ne dañ leen daal di ñoom dañ leen daal di nommé ñi nga xamante ni pour euh, mandat bi nga xamante ni war na mat lu toll ci ñetti at loolu la article 10 bi daal di euh, biral waaye li ci gën a li ñu ci gën a jàpp rek balaa ñoo jàpp balaa ñoo def li nga xamante ni ñooy entrée en fonction maanaam euh, tàmbali liggéey bi ñu war a def li nga xamante ni mooy euh, prêter serment maanaam daal di waat ci devant cour d'appel ko mënee tënk rek. Euh, mandat bi mi ngi war a tàmbale bi nga xamante ni commencé nañu def li nga xamante ni mooy prêter serment donc bu ñu mënee jàpp ni mandat kii di Nafi Ngom Keïta war na jeex mars 2017. 2017. mars 2017. mu nekk noonu professeur Jacques Mariel Zunker ñu wëlbatiku suñu gan jël ci xalaatam maître Mamadama Gueye avocat euh, bokk ci plateforme Sénégal bi ñu bëgg maître ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Ngoné. Euh, beneen débat euh, Nafi Ngom Keïta ci wàllu OFNAC mars kon 2013 mars 2016 war a jàpp na comme ni ko pouvoir bi waxee jot na ndax ba ñu ko signé lañ ko war a jàpp boobee dat wala ci li nga xamante ni moom la professeur bi wax ci ci loolu ngay gën a d'accord. waaw xam nga euh, euh, professeur Jacques Marie Zwanck li mu wax lu leer la parce que date yi ni mu ko tëralee dafa dafa leer parce que effectivement ñu ngi nomee nommé Nampy Ngom Keïta 25 juillet 2013 mais yoon si boppam moo ne. Mm-hmm. article euh, euh, 17 na article 10 ne na laata ñuy def dara ñi ñu nommé chef nag foog ñu prêter serment loolu article 10 moo ko wax. ils prêtent avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la cour d'appel mooy laata ñu nga prêter serment mënoo def dara kon kay mandat bi foofu la war a mën a doore loolu ci yoon la nekk donc discussion boobu je pense que tranché lañ ko. kon du pour mu leer du date bañ la nommé bi nga tàmbalee waat ba. Euh, jublu ci liggéey bi la loolu loolu sax la xel war a mën a jàpp ndaxte bu fekkee ne mënul def dara laata ngay prêter serment. man mandat boobu mënuñu ne am nga responsabilité. mais xel mën na jàpp tamit ni xëy na comme nommé nañ ko rek moom moo nekkoon ci ci poste en tout cas daal loolu yoon li mu wax. mooy laata nga def dara. foog nga prêter serment. te je pense que professionnel dem sans que domaine bi mu nekk man avocat d'affaires la juriste la mais domaine bi mu nekk droit bu spécifique la li mu ci wax lu leer la moo tax man li mu wax duma ci teggi dara moo tax foog au sax affaire u date yooyu ñu seet lii li wër mbir mi parce que li ko wër mhm. mooy expliquer yenn yi parce que mbir mi dafa am yàkkamti. dafa am patam yàkkamti pour jëlee ko fi. waaw ci lu wér. pour lan ci ci ci yan waaw mais loolu xam nga mbir mi dafa am fu mu jógee. nañ ko nommé mu wax affaire budget président maire dal ci kawam. ba mu ne sama budget nañ ma ko jox ba liggéey ñu dal ci kawam. mu commencé di liggéey tàng yële passé génn fi rapport coow bi ne cour ñu attaqué ko encore parce que rapport yi mu génn. am na ay enquêtes yu mu nekk yoo xam ne ay ay ñu jege président de la république ils sont impliqués notamment Petrotim mi nga xam ne rakku président de la république dafa concerné mm-hmm. donc day wane ne Nafi Ngom Keïta bi mu defee rapport am war ko war ko présenter président président daf ko bañ a recevoir alors que mu ngay recevoir ñeneen ñu def ay rapport ñëw di ko présenter fu président tegu ko fenn parce que dañu war a jàpp mbir gis nga président la bi pouvoir yi ñu ko jox dafa am lu muy jëriñ dafa am finalité ni ko tubaab du waxee du lu ma neex laay def. mais mais xanaa la li soxna si doon liggéey da koo neexul kon. li non ci lu wér loolu lay ñuru xam nga man sax mën naa ci wax à l'aise parce que man ma gis-gis booy yaakaar naa ne ndaw soxna si mënoon na def lu ëpp li mu def. waaye lu as loolu mu def sax dafa déranger président de la république. parce que yenn dossiers yooyu ngay junj comme ay Petro-Tim ak yeneen ku mel ni Birahim Seck ak ñeneen junj dañ ko bu yàgg. wax ni xëy na ñu ngi soulever yenn dossier mais am na yeneen i scandale yoo xam ne OFNAC waroon na ci mën a jublu. bien sûr loolu laa wax boo tax man si ñi xalaat ne OFNAC mënoon na dem fu gën a sori loolu mais mbir mi dafa am leneen lu ñu war a seet si biir gis nga fee yi bu ñu ko jàppee rek daf ñu daf mm-hmm. affaire u état de droit la maanaam péetewaa yu kaw yoon ci ci Sénégal yoon moo féete kaw lépp ak ñëpp même président de la République lii président de la République jalgati la illégalité la dañu jalgati yoon te bu ñu jalgatee yoon dañu attaquer état de droit dañu nasaxal état de droit te bu ñu nasaxalee état de droit bunte la boo xam ne mën na yóbbu réew mi foo xam ne baaxul. moo tax tey mbir mi waruñu ko woyofal waruñu ko suufeel waruñu ko def rek fait divers nii. mais ñoom ils parlent d'un autre débat inutile. Euh. c'est un débat d'une très grande importance débat capital la parce que tey li ñu seetlu mooy yëfu tey te président de la république amul droit def loolu dañ ko jox pouvoir pouvoir bi dafa am finalité. li ñu seetlu mooy day jëriñoo pouvoir bi à di ko utiliser chaque fois bu yaakaar ne intérêt politique am dafa menacé. te fii lu fest dañu gis ne fii doxin bi ni mu ko gisee moom dafa gisee ne doxin bi dafay menacé ay intérêt politique li la ko lan moo la koy wan soxna Ngone. Mm-hmm. Afnac ciblé na directeur de transport terrestre ba ñu jàpp ko def ko su mandat de dépôt ñu gaaw ko génn lool teguñu ci fan ñu dindi ko directeur foofu jox ko PCA. ci ku ñu topp loolu mooy li ngeen def sama yoon nekku ci sama intérêt politique laa topp la preuve leneen bi ñu fi euh, euh, ciblé euh, directeur directeur COUD bi donc ñun li ñu wax mooy. ñun état de droit daf ñu daf ñu def dafa am solo. mais est du maître ci wàllu ba ngeen war a wax xëy na kon da ngeen a waxul seetaan muy teggi jéego yooyu nga junj. ba tey xëy na mu teg bi ñu jàpp ni dafa ëpp. nañ dénoncer violation état de droit même référendum bi passé wax nañ président dafay violer état de droit Sénégal yi nag dañu war a yeewu parce que lii si ñeg bi la jëm bu ñu négliger lii. dañu nekk ci benn début processus boo xam ne dañu dañu nasaxal état de droit pour installer benn forme autoritarisme président dafa wéet ci ay pouvoir am te lu baaxul dafay indi autoritarisme. dooleem dafa bari. dooleem dafa ëpp dafa jéggi dayoo déjà ba pare nag bu fekkee ne dafa jéggi dayoo ba pare mu koy jalgati dafay garaaw trop. mais est-ce que du yéen itam coow li rek moo fi nekk mais amu leen doole changé ko ci li muy def parce que wax ji day romb mais comme on dit moom day jëf li muy jëf di ji avancé. ñun ñun dañu am role bu ñu ci am waaye Sénégalais bu nekk moo am responsabilité ñun xeexaluñ ko suñu bopp. man am naa xam am naa su may su may xam-xam su ma mën-mën yoo xam ne suñu ma bëggee teg lu ma lu ñu warul teg man naa ci défendre mais ñun li ñuy wax affaire état de droit sénégalais bu nekk la concerné moo tax may sensibiliser sénégale yi lu mel ni buñ ko woyofal sénégalais yi nañu commencé di bañ lu mel nii. mais ci naka lan lañ mën par exemple ci cas euh, Nafi Ngom Keïta bi jëlee of naka jotagul képp ku gëm ne. état de droit am na njëriñ ci réew mi da nga ci war a taxaw door ci Nafi Ngom Keïta que moom inspecteur général d'état la dafa am wu défense état de bu ñu gëmee ne illégalité am na si képp ku yoon may nga attaqué décret bi da ko war a attaqué mu doore ci fi Ngom Keïta moom dafa am responsabilité en tant que IGE dafa am responsabilité en tant que citoyenne te dafa yàgg ne taxaw ne dafay xeex pour que état de droit prévaloir si sur le plan judiciaire lan la ko yoon may tey ba ñu rétablir ko mën na attaquer mën na attaquer décret bi mën na mm-hmm. attaquer décret bi devant le devant devant la la cour suprême te ñun bu ma sañoon mm-hmm. en tout cas moom responsabilité am mën naa suñu respect awuma leçon bu ma koy jox waaye yaakaar na ne am na responsabilité attaqué loolu devant la cour suprême. pour respect droit yow da nga gis ni war ko mën a mën a bàyyi noonu. il faut que euh, yoon wax ci li wax a nekk. am na ñeneen ñu am responsabilité si mbir mi mooy off nag. Mhm. parce que ay collègues Ndafi Ngom Keïta lañu. ñoom nañu xoolaat mbir mi parce que tey bu fekkee ne dañu considérer que illégalité la mooy kañ fa teg waru leen mën a jiite. kon ñoom tamit ñu ngi leen di déglu nañ jël seen responsabilité képp ku war jël responsabilité am si mbir mi na jël responsabilité pour ñu bañ a nangu jalgat yi nga xam ne ñu ngi koy door pour nasaxal état de droit jëmbi ñu foo xam ne du baax ci réew mi. mais maître au sein du pouvoir ñoom sànq Abdou mba wax na ko euh, keneen ku nekk ci wàllu yoon la ñu fa teg bu lay respect de droit rek euh, keneen lañu ñu fa indi beneen euh, magistrat donc ñoom dañu jàpp ni ba tey yoon mooy. ñaari question yu la. ñaari question yu wuute la problème mu condition yi nga xam ne dañu arrêté Bandao Nafikiam Keïta parce que ñun ñun ci yoon dañu jàpp ne limogeage dañ ko dañ ko dañ ko dindi foofu du mandat bu jeex c'est un limogeage. mais bu waa of nag mënee kaas tey jii ci keneen ki ñu ko indi keneen kañ ko fa indi moom it war naa mën a wax xëy na euh, ni euh, bu sañoon duñ ko fa yóbbu euh, président xool keneen ku ko remplacer rien que pour le respect du droit. mais am responsabilité am la. responsabilité am la ñun ñun ñun euh, euh, profil am ñu waxuñu si dara li ñuy wax daal mooy que fa nekkoon te man ñun mën nañu ko wax à l'aise man mën naa ko wax à parce que man défendre ma Nafi Ngom Keïta ne woon naa liggéey bi mu def war na mën def liggéey bu ko ëpp mais état de droit lay défendre droit bi le fait ñuy défendre Nafi ñuy défendre li nga xam ne euh, ñuy ñuy ŋàññ jalgati bi président la République def dafa am importance trop parce que loolu daanoo réew mi dara nekkatu fi te loolu kenn waru ko nangu benn citoyen parce que bu dalee tey si kaw Nafi Ngom Keïta ah, suba dina dal si weneen kaw citoyen mais am na ci yeneen yoon yeneen coow yoo xamante ni dindi nañ fa ay juge euh, tey jii xëy na of nag moom moo aye ci wàll woowu euh, mais mu mel ni itam indépendance bi ñuy wax ba tey jii xëy na pouvoir bi ñuy wax euh, séparation bi ñëpp a ngi koy dénoncer même au sein de la magistrature que ni amul dañu bëgg a moom bopp mais xëy na xaw dañu xamul yoon wala doole jee fi nekk nga problème bi mooy boo jëlee historique wu acte yi nga xam ne président mu ngi koy posé ak gouvernement même ci CREI yi ak tey moom si loolu laa bëgg boo jegee CREI yi condition yi fi jëlee Aliou Ndao gis nañ ko li muy wane mooy lan mooy ku ma nommé na xool fi mu bëgg boo bëggee xool fu ma buggul danaa la fa dindi def nañ ko ci Aliou Ndao def nañ ko ci Nafi Ngom Keïta te loolu tamit waruñu ko warul mën a nekk mais la xam lan lay lan lay firnde day firnde ne président de la république gëmul bon gouvernance président la république gëmul lutte contre la corruption dañ ko def nii pour wane euh, au plan international. pourtant ci soni slogan la waaw mais loolu la wax la. xam nga euh, am na ko wax tey dimanche ci làmba ji mu ne mu ne euh, jëf du moroomu wax dëgg la. Mhm. waaye jëf ji mooy li ñu gis. xam nga wax ji mooy slogan bi. Mhm. gouvernance sobre et vertueuse. gouvernant sobre et vertueuse bi jëf ji wanewu ko wax ji ci ëpp. actes yi ñu gis daal teg si suñu bët ñu nax Sénégal yëpp day wane ne gouvernance vertueuse boobu ay slogan la. lutte la corruption ay slogan la. ci foofu laay daanelee maître parce que bu Nafi demee tey ji ñu remplacé ko ñëpp jàpp ni xëy na euh, ñenn ñi sax jàpp ni waxtu yu jotagul rapport yi mu mujjee génne mënees nañoo jàpp ni kon xëy na du mujj fenn parce que dafa dugg foo xamante ni xëy nañu mënees nañ ko wax noonu dugg dugg la wuñ ko fa. mais si lu wóor. kon amoo ci benn yaakaar si amuñu ci yaakaar xam nga taxawuñu yaakaar. chaque année ngeen dégg rapport cour des comptes wala rapport inspection générale d'État lu ci mujj du dem fenn président si boppam moo ne am na rapport xam ne moom moo ci teg moom moo koy teg ci. moo koy teg sous le coude moom moo ci teg tànkam. donc du mujj fenn am na fi fan yi passé lu firndeel ne rapport yu dem fenn mooy taxawaay bi procureur la république taxawoon bi ne woon day saisir boppam ci affaire affaire protocole de Rebeuss. xëy dellu si dellu na si gannaaw. te li président wax après mooy wane ne ay instructions la koy wax jox pour bu dem fenn moo tax tant que président ak gouvernement bugguñu rapport yi am mucc procureur de la république du ci def dara te loolu la ñu gis moom la ñu def ci affaire affaire affaire euh, euh, euh, protocole de repose vie fii noonu lay mujjee parce que ku fekk ki def rapport bëgguñu la sax recevoir pour dégg ci rapport. duñ duñ jot xalaat topp kenn duñ la base rapport ba nga def. beneen question ndax moom lañ tàmbalee mbokk ci actualité policier bi ñu wone sur le net euh, xëy na ay wax yu ñu daan wax la euh, preuve bi xëy na ñu ko def sax xamuñu lu leen ca mën a fekk police nee na du ko bàyyi noonu yéen ñiy xeex wàllu ger ak yu ni mel sa xalaat ci fee yooyu ñu yàgg a dénoncé mu nekk fi. li ma am na lu xew waxuma ne policiers yëpp la mais ñëpp xam nañ li xew ci tali bi loolu police warul toog ba ay xale di filmer mu naan naa naa ko seet police dafa war a gën a actif ci mbir moomu te li ma jaaxal ci mbir mooy ni ñu insister trop ci de xale yi ñu ngi leen di seet nañ leen jàpp. xam nga loolu xam nga loolu indicateur bu boo xam ne la dafay inquiété parce que ça veut dire que dafa mel ni ñu bëri ñu du xupp dañu bëgg a tiital nit ñi nañu insister davantage ci sanction yi ñuy def. ak investigation yi ñu war a def pour que loolu bañ di amati. leneen lu ñu def waxuma di wax du pour encourager di ñuy guerre mais dans la communication c'est très important que police wane ne moom dana jël responsabilité pour ci biir police loolu jógi fi plutôt que gën a insister ne xale yooyu ko def. dana leen topp dinañ indil fitna. di la gërëm bu baax maître Mamadama Guèye avocat bokk kon na ci plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg moom la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi maître ñu lay jaajëfal lu ñàkk yeneen i ndaje ñu woo la ci. wii euh, ci wàllug xibaar yi kon ni ñu ko waxee ak ay jafe-jafe ci wàllu ndox courant ak euh, kon ruqe gu ñu jàpp ni ngay kon fële ca euh, département bu Mbacké ña nga koy dund loolee ko ko xamle député Omar Sarr kon moom moo yëkki yooyee kàddu ca micro Mohamed Jo la waxee. bëgg nag ñu indi ci ay safara ñu teewlu ko. ngay ci biir département wu Mbacké commune la boo xam ne comme commune yëpp yi nekk ci département bi ñàkk ay jumtukaay yoo xam ne askan wi dinañ ko mën a jëfandikoo askan wi yeewoo ci ñaar fukki dëkk yi nekk ci biir commune bi am ay jafe-jafe jëm ci wàllu piste de production waaye tamit ay poste de santé yoo xam ne dinañ fa mën a dem faju ji. Euh, kii courant Gandiol samp nañ mais taalaguñ alam faju gi dem sama oto bi mooy mooy ambulance bi moo fi nekk chaque jour mooy jël di yóbbu mooy jël di delloo si ambulance amu fi dara amu fi te itam aussi piste amul benn piste moo fi nekk bi jëm yéeri te piste boobu dafa yàqu ndax piste bi defar bi baaxul askan wi boole seen jafe-jafe wax ko seen maire moom mu eggee ko député bii di Oumar Sarr responsable bu réew mi ne dina ko wax ñi nga xam ne ñooy kilifa yor réew mi. que ñi nga xam ne ñoo ngànk loolu ci réew mi maa ngi téléphoné jël ay rendez-vous ñun ñooy seen prolongement ci gox-goxaan yi maanaam lu ñu yëgul xamuñu ko ñun député yi booleeg nag dëkk fi laaj na su ma demee na ko ah dëkk sàngam de def ngeen fa ba poto yi waaye courant ba yegg si fa jigéen ña manqué nañu machine wolu wala jigéen ñi soxla nañu microfinance wax ak kilifa yi wax ak waa PUDC wax ak ministre yi. Ngay mooy benn commune ci département bu Mbacké bi nga xamee ne réew mi moo ko gagné woon ci élection locale yi ñu weesu. jamono ji nag fanweeri conseiller ak ñaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoo jël seen kaake ne dañuy dem fekk ki nga xam ne mooy Oumar Sarr ci groupe pour la refondation du parti réew mi région Louga ak jafe-jafe yi muy dund wax nañ ci it ci ñeent fukki yaat yu ñu doon waxtaanee euh, foofe ca diwaan ba ña nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñoom ñoo ko organisé woon euh, gouverneur kon moom it daan na fay teew moom moo doon présider euh, moomee ndaje dikk ca coono ñu jàpp ni fees na lool ca gox ba moom Alioune Badara Mbengue ñu teewlu ko ci micro Thierno Fall. état Sénégal bi xalaatoon ba créer région Louga def na fi ay réalisation yu am solo kenn mënu ko weddi. mais nag ci diggante bi aussi am na peut-être ay jafe-jafe yu fi jot am yu nga xam ne peut-être mébét ay mébét yu nga xam ne mébétoon nañ ko mais jotuñ ko def donc tey nag ku dox lu ma ñeent fukki at laaj na nga taxaw nga gees nga xool sa gannaaw donc daal loolu lépp tax na ba euh, occasion la daal pour que ñu xool suñu gannaaw li fi jot na am mais aussi ñu xool suñu kanam lan lañ mën a def pour que vraiment appuyé wu nag ci ñaari programme yooyu muy plan Sénégal ak acte 3 euh, pour mën a liggéey euh, lu jëmale vraiment donc région bi euh, kanam béykat yi nekkee ca kon boori fleuve du Sénégal ñoom jàpp nañu ni ña ngay tàmbale nag di dajale la jóge ca tool ya téeméer boo ca jël jot nañoo récupérer eh, juróom ñett fukk yi fa ñuy tiit nag moo di wàllu commercialisation bi eh, loolee xaw tàmbali ki nga xamante ni nag moom mooy directeur général bu sayet eh, Samba kante ma nga cay dalal xel yi nee na lépp lu ci war ci mesure danañu ko jël ci micro Seynou Diop ak caméra bi Seck la waxee. bu nekk ne la nam daan mel nga xam ne da ngay jaay waa Dakar ne bëgguñu ceeb bi wala duñ ko jënd xam nga ne 2014 2015 lañ jëkk def performance yu yu rëy nit ñi di ko coow mais lañu ñu góoboon ca kon saison ba la góob ca nawet ba ñëw fekk fa ndax ca njaay ma dafa yeexoon xaw a gël euh, gël guus mu jàmbat ko président ni leen conseil présidentiel waxu ko sax ci mbay d'une manière générale mais daf ne conseil présidentiel ci ceeb dong. ban ca jógee ba mbay may wax ak yow nii ceeb lambatul Sénégal yàlla dafa def non seulement président def na mécanisme nañ nañ ko tërale woon acteur yi ko seqoon ña ngi koy def nañ ko waroon defee mais aussi yàlla dafa def nu am qualité ceeb boo xam ne bii mucc na it ku ne xam ne ne tey sénégalais d'une manière général ku ci lekk benn ceeb bu ñu jëggaane da nga gisul ceebu Sénégal danga nga gisul ceebu vallée bi kon nag mbiru mbiru commercialisation tey ji ci suba. laa mujj ci liggéey ak secrétaire général ministère du commerce. am na ñu ñu seeti fële ca Ziguinchor ëpp nañu junni acteur communautaire euh, ci wàllu santé ñu jàpp ni nag ci boobee secteur liggéey bu am solo euh, la ñu cay def teewul nag lu jëm ci wàllu koppar ñuy teg ci seen loxo loolee yenn saa ay jafe-jafe lay doon du sax ak payoor waaye motivation la lu ñu gis ni dafa manqué ci wàllu woowu Boubacar jasi ci leeral. bokk na ci mbooloo biy liggéey ci lépp lu jëm ci kër docteur bu diwaanu Ziguinchor ñii ñuy duppee acteur communautaire te seen lii lim gën a takku ci am qualification liggéey bi ñuy def bari lool waaye kenn ci ñoom amul payoor lu dul ay ndàmpaay. joxuñu leen salaire ay motivation lañ leen jox te xëy na question boobu sax ministère mu ngi koy saytu acteur communautaire bi mooy ñëpp képp ki di liggéey. ci poste de santé mais ku nekkul euh, euh, agent qualifié maanaam nekkul infirmier breveté nekkul infirmier diplômé d'état wala sage-femme nga xam ne ñi nit ñooñu mooy matrone yi mooy ASC yi nekk ci suñu structure de santé yi maanaam poste de santé bi wala centre de santé bi. ngir ñu gën a xar seen tànk tubé ci seen liggéey te gën cee xarañ région médical bu Ziguinchor dafa daal di sargal ñu si gën a ràññeeku. ñi nga xam ni depuis vingt ans depuis ñaar fukki at fanweeri at yàgg nañ ci système bi di liggéey te mësuñu ci xaar dara di liggéey ndax seen wér yaram askan la ñuy delloo njukkal ci région médicale bu Ziguinchor dafay fësal rek ñoom li ñu jot a liggéey parce que si wàllum aar yeete si wàllum aar si yenn feebar yi ba nga xam ne du dal tout tànk yi ak jigéen ñu wérul yi ñi nga xam ne ñoo néew doole acteurs communautaires yi dañ ciy liggéey liggéey bu am solo ba tax na suñu naan tey Ziguinchor jóge na si wàllum PF fii yegg feneen dañ ñoom dañ cee indi contribution bu baax. ñu jàpp ni junni acteurs communautaires ak ñaar fukk ak juróom benn ñoo nekk ci diiwaan bu Ziguinchor di liggéey ci lu mat téeméeri case de santé ak fukk ak juróom waaye téeméeri site communautaire de santé ak juróom ñaar fukk ak ñaar. Alfred Amadou Mango lay wuyu fukki ak benn la maam BFM fële ca diwaanu Thiès ay waajuram ay jàngalekat lañu cursus bu am solo euh, tax tey jii mu jot ci boobee lijaasa Cheikh Anta Diop Latir Sey ñoo ñuy gën a xamle ak moom. boo gisee muy dox day mel ni kuy yoot boo gisee ci xoolinam ku yeewu la grand Alfred Amadou Mango fukki at ak benn la am BFM xarañ lool lu jëm nag ci wàllu ordinateur ñu ngi ko fekk mu toog ci taabalam di saytuwaat ay liggéey yu mu ci def rawatina ay reportage yoo xamante ne def na ko mbir mi yéem na ñu bari rawatina fii ci diwaanu Thiès. bu ñu leen nax naa leen sëriñ balaak chance balaak dig ba la jàng la jàng say leçon def say exercice loo comprendre nga laajte. sa papa dina doon jàngalekat sa yaay doon jàngalekat boo jàngul du feeñ fenn ci yow kon da ngay jàng d'abord du lu ñuy donn lu jëm nag ci wàllu njàngam boo xoolee dañ ko tëbal ay classe yu bëri laataa muy dikk ci classe troisième ñaari at laa ko yóbbu petite section ñu jóge Matam ñëw Thiès mu def fi moyenne section ma tëbal ko grande section à la maternelle mu def CP indi moyenne boo xam ni un élève qui a neuf et quelques de moyenne en classe de CP mun a liir mun a bind ma ne classe C1 leçon fa am te leçon ku mun a liir mun ko ko jàngal sa bopp mu tëb classe C1. bi mu defee CM2 ak prédisposion yi ma gisoon ci moom ak li mu doon liir ak li mu doon bind ci kër gi mu am entrée en sixième ak certificat à neuf ans bi ñu ko inscrit en cinquième mu def performance jël deuxième ñu indi ko troisième ci la ko décroché. à 11 ans. ku dal la mi ngi toog rakkam bu góor ak bu jigéen wër ko moom da nee na jàng rek la xam. informaticien wala kon ma doon benn kii docteur rek. ndax ba ma amee 4 ans sama benn cousin bu tuddoon Omar mu ñëw fekk mu yore machine am ci la ma wonee na la ñuy utiliser machine depuis jour boobu nag laa commencé utiliser machine dem ba xam. bu bëgg liifantu la nee na nag ay livre sopp na ko lool ba nee na bés bu nekk dina ci liir ñaari téere ñu koy euh, kon euh, félicité ci BFM boobee mu jot na mu ko waxee am njàng la euh, doon doon royukaay nag ci gone yu bari tey jii lu jëm ci wàllu wergu yaram ci la ñuy dellu siwaat ak doomu jàngoro ak jabet bi ni muy lawee kon fii ci réew mi l'enquête buñ ci def ci ñaam fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent wane na ni téeméer boo ca jël ñaar yu tombal benn am nañu kon li nga xamante ni moom moo di jabet bi mu laaj nak ku leen accompagner. ngir it euh, ay euh, gën a wàññi lu jëm ci prévalence bi euh, ci biir askan wi laaj na ay kon sensibilisation gu ñu ci war a def gën a askan wi ci boobee feebar ab janoo ak waay taskatu xibaar la ñu ci defoon ngir waajal exposition ci wàllu wérgu yaram action sociale exposas ñu jàpp ko 28 jàpp 30 juillet fii kon ci ndakaaru jëwrin ji ñu dénk wàllu ko wérgu yaram jiite ko professeur Marika Cissé chef division lutte contre les maladies non transmissible jàngooro yi dul wàlle moom moo ci yàddu ci micro Ibrahima Kane indi nay leeral ci situation jabet ci Sénégal. exposition bi ren dafa dañ ko accès ci priorité yi ministère bi jox maladie yi nga xam ne du wàll ñu tuddee ko maladie non transmissible te ñu jàpp ci ñeent yoo xam ne ñoo lëmbee ñoo lëmbee àddina si yëpp muy jabet tension cancer ak maladie respiratoire chronique yi. feebar yooyu du ñu seetlu ne ñoom li leen lal ñoo ko bokk li ñu bokk mu lal leen mooy li ñu tuddee facteur de risque moom mooy yi nga xam ne bii buñ ci nekkee dinañ yokk li ñi ñi feebar bu ñu jàppee ne ñi am xale yi ba ci njaga njagamaari 18 ans dañuy am nekk en bon santé waaye bu ñu gënee dugg ci dem ci gën di gën di am am di gën di jëm kanam feebar yooyu di lëmb di di di di agsi ci ñoom ñu daan ne nag ñun tee ñoo jël lépp lu ñu am wala li ëpp bokk ci lu ñu am def ko ci ñi nga xam ne feebaraguñu aar leen. professeur Marika Cissé ngeen gis noonu wàllu aada ak cosaan ak benn conférence internationale euh, bu ñu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru janvier euh, la ñuy waxtaanee nag moo di daal lu jëm ci wàllu patrimoine universel euh, nu ñu mën a def daal ba gën a kon waxtaanee wàllu civilisation reconnaissance des civilisations loolee mooy gën a fës ci ndaje mi nee nañ buñ càggee ci kilifteef président de la république Macky Sall lay amee dellusiwaat ci waajtaay ak ndajem comité scientifique ak comité d'organisation bi Pape Fara Gning moo teewee seen janoo ak waaye taskatu xibaar yi. conférence internationale de préfiguration bokk nag ci li nga xam ne moom la ñu teg ngir jëmmal lii di musée des civilisations noires bi leen ndaje nag day fexe def lii di promotion wàllu diversité culturelle juróom fukki at gannaaw ba ñu amalee première festival des arts nègres. ni ngeen ko xamee wàllu aada ak caada euh, dafa nekk ci euh, gën a jógaat. jëm kanam euh, mu doon euh, lu ñu fullaal ak lu ñu faydaal euh, ci jamono yi ñu toll nii musée yi nag dafa bari te wuute bii nga xam ni bii moom la ñuy tëral fii tey mën nañu wax ni niroowul ak benn ci àddina bi mu nekk lu yàgg loo xam ne togg nañ ko mu jur nag bile le musée conférence bi nag dina dajal lu tolloog ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ñu jóge biti réew lu ëpp téeméer ci ay ñoo xam ne fii ci réew mi lañ jóge ak ci diaspora bi. ñi nga xam ne ñi ñoo jógee bitim réew di ñëw wax naa leen ko ñeent fukk ak juróom-ñaar lañu ay gëstukat lañu ay way ay way xarala lañ ay way euh, ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu aada ak caada la ñi nga xam ne ñooy jóge ci réew mi di ñëw dinañ toll ci lu ëpp téeméeri nit ci lim comité scientifique bi nag li mu bëgg def musée bi mu nekk bërëb boo xam nit ñi dinañ ci mën a fàttale mën a xam tamit njëriñ bi civilisation noire am ci patrimoine universel géem bu mu nooteelu gu jóge bitim réew juróom benn at lañ ci teg ñu dajale kuréel googu fii ci Sénégal muy festival mondial des arts nègres ca booba jàppoon nañu ni li ci waroon bokkoon na ci li ci war a juddoo muy musée des civilisations noires même suñ ko tuddewul woon noonu it ca waxtaan yañ ca waxtaanoon mënoon nañ caa séenoo lu mel ni ki musée boobu juddoo ci Euh, conférence internationale bu préfiguration bi nag ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi muy amee ca King Fahd Palace ci teewaay kii di njiiti réew mi son excellence Macky Sall. beneen xibaar fële ca France kon ca Rouen benn prise d'otage boo xamante ni daal dund nañu ko fa euh, ñaari samba booy ñoom ñoo ko defoon dugg ci benn église prêtre ba nag dañu ko daal di euh, mujjee fàtt ba police intervenir ñoom ñaar ñoo ñooñu defoon kon lu ni mel ñoom it dañu leen mujjee kon sox bal euh, ñu daal di ñàkk ci seen bakkan wàllu tàggat yaram football ak Casa Sport mi waajal final Coupe du Sénégal ñaari tali kon la war a dajeel waajtaay yooyu dañu cey Euh, dellu si ndax ñu ngi ci entraînement euh, yu am solo waaye it supporters yi ñu ngi xaar euh, bés bi digge ci mobilisation bu mag dañu ci dellu si ak Boubacar Diassi footballeur yu Casa ci pelouse bu stade Aline Sitoé Diatta vert et blanc yu Ziguinchor di entraîné wu ci xel bu dal seen entraîneur Demba Ramata Ndiaye taamu amal ay atelier yu ndaw ndawaan waaw wala atelier bi may gis ni gis nga ko gis ni buy la liggéey dañuy liggéey naka la ñuy dugalee buy amul gardien bi am. waaw gars yi si peggee la ñu war a jaar pour ekkati bal bi. Demba Ramata Ndiaye ne tekk te fasul yéene soppi doxalinam ngir final bu Casa Sport di waaj a fan yii ñu dënmal. waaw xam nga man liñ ma jàngal àndal ma dañ ma ne formule buy dox daal doo ko wecc xëy na dafa am li nga siy yokk rek. waaw luy dox daal doo ko wécc dafa am li nga si yokk euh, par rapport à ça nu ñuy préparer championnat la ñuy préparer naan mais nag c'est que fii nag dañ leen di ñaax leen gën a wax intérêt bi. yaakaar aman dina ni su bés bi jotee équipe bi dina mat sëkk. tous ceux qui étaient blessés sont revenus. wax dëgg yàlla ñi amoon ay gaañu gaañu dellu si nañu. fi mu ne nii daal ñu ngi sant yàlla. ñu ngi am yaakaar ne fii ak boobu du ñu jànkonteel benn jafe-jafe. la finale. waaw yaakaar nañu équipe dina complet parce que am nañu ñaari ñaari joueurs junior yoo xam ne ñu ngi équipe nationale junior mais am nañu yaakaar ni fii balaa finale bi dinañ ñëw pour rejoindre groupe bi quoi pour jouer finale bi. ca tribune ba askanu Sénégal mën naa séntu beneen match. loolu ñu ngi koy sóoraale xam nañ ñu ñaari tali dafa bëri supporter ñaari tali du bëri supporter ba raw Casa Sport Casa Sport supporter yu mu yor ñaari tari supporter yu mu yor biir Dakar Casa sama ko ëpp supporter biir Dakar kenn du ñu jiitu terrain. waaw ñu ngi ñu ngi ñaan supporter comme ni ñu ko yàgg defee rek ñu ñëw jàppale ñu pousser ñu à ba keroog bu ndam li di ñëw waaw. su Casa Sport jëlee ndam lii. dina mën a dem Afrique. bii paa dina mën a joué ci stade Aline Sitoé jaata bu bees bi. stade bii Mbaramata Ndiaye di woo. ñaareelu stade Aline Sitoé jaata match boobee samedi kon la ñu ko jàpp yegsi ci yéenekaay yi lu ñu xëyee ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndaw si jiite woon of nag far na mujj ci of xar dàq nañu na fi ngam ubbi leen l'observateur démb la ñu jot bataaxal bu ñu bind na président de république jël na dogal ci décret numéro 2016 1004 bu 25 juillet 2016 ne soxna si dina fi ngam kayta ma jiite woon of nag jiiteetu ko mandaam jeex na seneen ndaw suñu naan Seynabou Ndiaye Jaxate di magistrat moo ko fay wuto yéen bi nañu na fi ngam la ko jële ca bopp mu waxoon keroog ba muy siiwal rapport OFNAC bi ak conférence de presse bi nga xam ne defoon na ko moom soxna si doon ci jébaane lenn ci kilifa yu nekk ci réew mi te bañ na duñ def déclaration patrimoine loolee la lu jara bi wax wax mars 2017 ca la mandaam waroon a jeex jeex naam jeexul yéenekaay bi nañu li am daal moo di dem na Seynabou Ndiaye Diakhaté ñëw na di magistrat bu ñu xam ci réew mi moom Seynabou Ndiaye Diakhaté moomee ko dugal ko bi mooy bukki bi fi màttoon Madiambal Diagne waa kër Madiambal Diagne yi bu on yegsi na anki dina nañu kaar bu nekk am na terminus kaarum na fi ngom kaytaay yegg si na ci terminus bi populaire xëy di ñu leeralal li ray soxna si ba mu dee ana moo tax bi ab mandaam jeexee kilifay réew mi may ko fu mu yàkk ak nàkkam diril ko ci ne jeeg buy fatte ci kër benn moo di nopp ak pat mu di droit de réserve gi ab liggéeyam war a àndal soxna si di na fi ngom kaytaa amu ko woon demoon na it ba diggam ak président Macky Sall confiance amatu ci woon na mu yore woon kër gii di of ko rafetlul woon populaire nañu lii moo waral ñu tëbal ko la si ne kaay nañu li ko xañ poste of nag moo di nee nañu daal laal laa làkke ba noppi wax lu ñu Nafi Ngom Keïta li ko rey ba mu dee rapport bu OFNAC bi mu génnee bu yàggul ca la ndax da caa dut baaraam ñoo xam ne ku laaleeg ñoom dënku réccu ay jegeñaale nguur gi moo tax bi ñetti atam matee ñu takkal koy kaakeem ne ko jàmm ak jàmm laatir bi nañu bu Ndiaye Jaxate moo ko wuutu ca bopp OFNAC bu Ndiaye Jaxate jëlaat na service réew mi quotidien nañu fukk répression enrichissement illicite di créer mujj ku yóbbu dem fa toog xaar OFNAC ndax foofee lay mujj yëf yi du dem ñu dem ci enquête yi ne kay xooli fa li opposition bi tontu la lion kii door mu di Macky Sall enquête nañu ku jég politique gi mu di opposition bi nee ñu Macky Sall réew mi fi mu toll soxla nañu leneen lu dul gaynde guy nelaw kenn ci opposant yi mu di Cheikh Bamba Dièye njiital FSD/BC nee ci xët mu njëkk la tribune gaynde simb maanaam faux lion buy nelaw loolee suñu yoon nekku ci Bamba ne ñu nee leen Macky Sall li jara moytu moo di un peuple qui dort Ousmane bu parti Pastef nañu ci xët mu njëkk réew mi quotidien gaynde guy nelaw yàlla nañu ci yàlla musal ndax gaynde bu dee nelaw rek moo di lekk na ba ab kollam fees mu tëdd na yàcc na yasar boole yaafus ak tayel wal fajir nañu président Macky Sall mi doon tàppaas sa que mbii fa foore opposition bi keroog ba muy inauguré pont jot na wàllam opposition bi tontu nañu ko samañ nañ ko ko ba mu fël mu di parti réew mi di parti démocratique Sénégal di parti Pastef bu Ousmane Sonko nawet bi ñëw na taw bi door na jafe-jafe yi tàmbaleeti na yër leen xët mu njëkkul observateur Sénégal a ngi tëmboo journal bi nañu ci ngin gi neew moom jëy yaa faam ndax dënnu bi moo faray ñaari xale nga dem fu mel ni Mbuur Kaolack wala Kaffrine lépp nga ci biir ndox ma moo taxit foofee ca Kaffrine démb ba fa doon leen nemmeeku ji ak di leen masawu àndoon ak maire ba Abdoulaye Wilane askanu Ndukumaan gi jéppi gu ñu leen jéppi moo tax ñu leen doon yuuxoo ba démb muy jën Farba Sarr di Abdoulaye Wilane ku ci doonoon galaas sey nga sunu lamb xëy na sey ci Lac de Guiers 2 ba jeex tàkk bukki Yékini bi le journal bi xëy dalal mu di Lac de Guiers 2 Lac nañu muy Gris Bordeaux di Modou Lô ak Eumeu Sène maay seen chef man roi laa du ma laaj kenn Lac de Guiers 2 ne waa sunu lamb ñi séq lamb ji booy seet ma ci xam dëgg-dëgg ñi xam kan mooy Lac de Guiers 2 ñaar lañu di Birahim Ndiaye ak Aladji Ngagne Diagne ba muy bëre ak Yaxya Diop Yékini Lac de Guiers da nañu damu koo xañ mu doxal looloo ko xañ combat bi ci enquête mun nañu fi ñu toll nii dara deseetuma ko li ma yoroon yëpp dugal naa ko ci ay xarxa fuufa populaire nañu Lac de da noppi na ngir bëree Gris Bordeaux Modou Lo wala Eumeu Sène ki mu ne du bëre ak moom ba àdduna bi tukki mu di Bombardier le roi des arènes Lac de Guiers 2 leeral na ci l'observateur li tax mu ne du mës a bëre ak Bombardier benn nee na jabari Bombardier aw turandoom di Lac de Guiers 1 moo ko ñaani woon ñaareel ba mu ne yaayi Bombardier moo ko wax moo ngi toog mu ne ko sama fekkeek sama wuute diggante yéen ñaar ñi bu leen mës a bëre. gërëm ko Mamadou Mouhamed Ndiaye mi ñu àndaloon ci xibaar euh, yéeni kay li ñu xëyee xibaar yi nag fii la ñu ci daal di euh, yam ci digg bëccëg bi rédaction bi incha allah danañu dellu si 19h30 ak 20h euh, ci yenn i xibaar di leen ñaanal ngeen wéy du yendu ak jàmm ak programme télévision Futur Média ba ci kanam tuuti ak yeneen yi programme